min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim mbokki téléspectateurs yi yéen ñi safoo di suivre site bi di Thiénaba 24 ba tey ñoo ngi ànd ak yéen ci seen émission wàllu ba comme ni ñu ko miinee woon ci jamono ju nekk waxoon leen ko ci suñu émission yi passé di wax ni ku wal mburu tudd dëkk te ku ne xam na ni jamono ji nit ñëpp ñoo ngi bàyyi xel ci élection locale yi naam élection yëpp am na solo waaye rawatina élection gox-goxaan yi ndax kenn ku ci nekk ci ñun ki muy dénk wér-gi-yaramam di ko dénk njàngam di ko dénk ay yoonam di ko dénk cetam kookee war naa xool kan la tànn ko ba mu doy ko ci loolu lañu dalaloon ay mbokk tey nag ñu dalal suñu mbokk Ibrahim Ndiaye mu teewal fi coalition Yewwi Askan Wi ki nga xam ni moo leen di présenter émission bi maa ngi tudd Cheikh génn ki nekk ci technique bi di DG Grand Talla Diagne kon xam naa dañuy soobu ci waxtaan wi Ibrahim Ndiaye ñu bàyyi la nga présenté wu aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki téléspectateur Thiénaba 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jëtal ci sunu nuyo Baye Asa Alhassane xalifa général de Thiénaba di nuy aussi le chef de village Serigne Alassane Niane Seck di nuy imam ratib sunu maam Serigne Cheikhou Amadou Seck di nuyu notable yi ak leader politique yi di nuyu aussi tamit euh, coalition bi ma fi teewal mu nekk le candidat Khalifa Ibrahima Ndiaye ak ñi nga xamante ne ñoom la ko bokkal soxna maam Diop ak Mansour nguur a Saware bu ma limee ñooñu rek yaakaar naa ni ak euh, euh, sunu grand sunu sunu père Birane Gueye bokk ci coalition bi féete fi nga xamante ni mooy zone nord waaw Serigne seeti Tidiane loolu moo nekkoon nuyoo bi. macha allah Ibrahima Ndiaye nuyoo am na solo. ba yóbbaale ñu ñun ñi ci jotal suñu nuyoo xalifu général suñu maam Assane Seck ak imaamu ratib Seexu Amadou ak chef de village suñu ndijaay Baye Alsane ñaana di nuyu waa dëkk bi yëpp ak képp ko nga xamee ni mi ngi suivre Thiénaba 24. Ibrahim Ndiaye lan moo la dugal ci politique ak lan moo tax nga ànd ak xalifa njaay mi nga xam ni moo nekk ci boppu coalition Yewwi Askan Wi. posé nga question bu am solo mais loolu moom yaakaar naa ni tontu ci dina yomb parce que comme ni ñu koy defee rek ginnaaw bi ñu nekkee jeune juddoo Thiénaba màggee fi yaroo fi jàng ci école yi ba ni génnee dem euh, ci sem Thiénaba lañ génnee fi lañ amee suñu BFM dem euh, au niveau du lycée Ahmadou Ndak yu ko fay dem fa université ginnaaw bi ñu dem ci dans la formation professionnelle ñu jël si aussi aussi Thiénaba liggéey fii ci mairie Thiénaba ba ni ñu ni ndaw. Euh, dugg ci politique mais comme ni nga ko waxee rek li tax ñu dugg ci politique lend rek la mooy nekk ndaw di yëngu ci mouvement associatif comme ni ñu koy ñëpp di defee jaar ci nawetaan jaar ci ay formation yi nga xamante ne ay kuréel étudiant jaar ci aussi for euh, jaar ci euh, comment dirais ay association yoo xamante ne nekk ci koñ di def set setal ginnaaw bi ñu yëngoo ci yooyu yëpp nag ñu ne nag pourquoi pas tey jii ñu dugg ci politique ndax wa dëgg yàlla li ñu war a xam yëpp lu ci bëri xam nañ ko ak expérience bi am war nañu mën dugg ci politique mais ginnaaw bi nag am na ay parti yoo xamante ne ci lañ nekkoon doon militer muy parti yu mel ni réew mi daanaka yàgg nañ di nekk mandat di nekk euh, représentant de bureau ci réew mi ak yeneen i parti ginnaaw bi rek lañ euh, bi élection locale yi dese ay ay at lañ ni ñun comme que commune ba ni muy doxee nii gis nañ ni war na a war naa mën a am changement war a mën am coppite coppite boo xamante ni day am ci gox bi loolu moo waral nag biñ dawalee suñu bët xool ak expérience bi ñu am ak fi jaar yëpp war a ñoo mën a tànd candidat boo xamante wala war a ñoo mën a ànd ak koo xamante ne xëy na bu ñu ko joxee loxo ànd ak moom war nañu mën a am satisfaction ci commune ba loolu moo waral suñu ànd ak Khalifa Ibrahima Ndiaye euh, li koy motiver nag lépp mooy gis nañ ni moom ja ndaw la am na xam-xam aussi li ko yàlla jox ku su néew mi ngi koy delluwaat ci askan yi parce que man seen Cheikh Tidiane li ma gëm mooy politique. c'est des action avant ngay dagan baatu askan wi lii la war mooy ngay def ay action sur le terrain ba nit ñi reconnaître xam ni kii liggéey moo ko tax a jóg loolu benn la ci li nga xamante ni moo tax maanda Khalifa Ibrahima Ndiaye mais beneen bi mooy li ma gëm mooy xam-xam lépp lu mu àndul rek ci nërmeelu lay mujj man loolu laa gëm parce que comme ni ko Cheikh Anta Diop di waxee yeneen bindikat yu bëri wax ko mooy xam-xam mooy li nga xamante ne tey jii mooy doxal mooy doxal am yaakaar naa ni ku jug ni da ngay laaj gox da nga jàpp ni li fi nekk baaxul moo tax léegi bëgg nañoo xam ndax li fi nekk dafa baaxul wala lan moo leen motiver ba tax ngeen di laaj gox bi. waaw euh, Serigne Cheikh Tidiane comme ni nga ko waxee parce que man ku ma xam-xam ma ak mairie Thiénaba parce que li ma gëm mooy euh, du fekkee ay nit dañoo ànd di liggéey li war mooy ñu impliqué la ci li nga xamante ni mooy gestion mairie bi. man parce man foofu laa nekkoon ci mairie di fa liggéey en tant que municipal mais man gëmuma li nga xamante ni mooy tëju sa roq dugg sa saal tëju liggéey li ngay liggéey génn proposé ko askan wi man li ma gëm mooy considération laa gëm ak li nga xamante ni du fekkee dañ ko bokk muy pénc mi muy mairie bi ku nekk joxe ci sa xalaat ñu àndandoo liggéey ko mu nekk loo xamante ni dafay ñoŋ mais nekk loo xamante ni aussi ku ko gis xam ni lii lu am solo la du doxin boo xamante ne doxin bu baax la ci commune moo waral tey jii ñu jóg wax ni lii du noonu la war a demee nii la war a demee yaakaar naa loolu ku ne sañ ko parce que ay doomu Thiénaba lañ mu defal ñu lépp tamit kon jàpp naa ne ñun li ñu tax ñu dugg ci politique mooy duñ loo lu ci nekk rek dañuy xool li nga xamante ne li ñu may ñu doxal loolu. kon gis nañ ni commune Thiénaba comme ni nga ko waxee dama jàpp ni doxin bi mu waroon a doxe doxewu ko. moo tax tamit ñu ñu ñu génn wax ko ba ñëpp xam ni maanaam lii du nii la waroon a demee nii la war a deme kon daal su ma déggee sa tontu mooy xalifa njaay mi nga xam ni mooy candidat wu Yewwi Askan Wi dafa jàpp ni Thiénaba ni muy doxee warul maanaam doxin wi baaxul ba tax mu am yéene wàllu Thiénaba léegi xalifa Ndiaye moomu mooy kan. waaw Khalifa Ndiaye comme ni ñu koy waxee doomu Thiénaba la comme que sànq rek dañuy jógee ci xalifa bi mu wax ci wax ju am solo vraiment mu ni ko xalifa yow doomu Thiénaba ga mais damaa gis nga baal ma dama gis ñu bari dañuy politiquer xalifa bi wax ma nangam xalifa bi wax ma nangam. loolu lan la waaw parce que dafa am solo. Hmm. parce que Sénégal ñun li ñu gëm mooy suñu xalifa général yi. dañuy profité ci occasion bi di ko ñaanal euh, mission bi mu ameel maam Ahmadou Ndak mu nekk mission boo xamante ne mu am ci réussite totale. parce que ñun kenn mënuñoo tàqale crédit la ñu gëm parce que mooy li nga dañ ci nàmpatal. yar ñu ci aussi parce que suñ kilifa yi tamit loolu lañ mos dikkam parce que Thiénaba comme ni ñu koy waxee rek war moom moo fi dox kon dañuy jàpp ni sëriñ bi bu waxee Amary Ndack moo wax kon jàpp nañ ni moom loolu muy génne ci làmmiñam di ko wax day nekk kàddu yoo xamante ne kàddu yu am solo lay doon comme ni mu ko waxee mu ni ko xalifa yow amoo foo jëm Thiénaba mooy sa lépp kon yàpp naa ni xalifa Ndiaye tey jii bu ñëwee taxaw. mais ni mu ko ko waxee la ko waxee leader yëpp tamit. waa ni mu ko ko waxee la ko waxee leader yëpp mais yaakaar naa ni moom am na ci benn particularité boo xamante ni basam am na ko. ah comme. waaw particularité bi mu am mooy euh, dafa wax lu am solo. Mhm. mooy tey jii kii di njiitu réew mi nekk fi mu di Macky Sall mu ni ko duma doon laaj kenn xalifa laa koy wax. kon laaka naa ni loolu moom du fekkee da ko wax rek day wax ji day day ferenkulaay day day am fu mu féete. kon yaakaar naa du loo xamante ni maanaam da ko wax candidat yëpp c'est-à-dire que ñoom ñëpp tam njabootam lañ. te dañ ko war liggéey liggéeyal aussi. ñëw yaakaar naa mooy kan. waaw xalifa comme ni ma ko waxee mi ngi juddoo fii Thiénaba di doomu Thiénaba euh, dafay fii jànge fii cycle primaire am fii ci école Serigne Ibrahima Seck ginnaaw bi fi jógee am entrée en sixième mu dem euh, euh, lycée Koumba Diak Gaïndé Khombole def na fa quelque temps après nag la dem ca au niveau de Dakar au lycée des Parcelles Assainies fa la amee li nga xamante ni mooy baccalauréat ginnaaw bi la université technique lycée université technique bu Thiès fa la defee une partie de son cursus ba am fa un licence après ginnaaw bi nag ci la dem bitim réew àggale njàngam liggéey ci entreprise yu bëree bëri bëri bëri nekk un ingénieur informatique liggéey ci domaine boobu mu nekk loo xamante ni ku ne xam ne ko ci liggéeyam xam ko aussi ci xam-xam bi nga xamante ne am nañ ko en la matière ba ñu bëri ko jox ko bi nga xamante ni moom la kon yaakaar naa ni loolu mooy parcours bi nga xamante ne Xalifa Ibrahima macha allah li nga wax ci parcours bi ci wàllu xam-xam am na solo hmm. ñëwal ma ci wàllu jikko parce que Thiénaba lañ wax waaw Xalifa Ibrahima Ndiaye comme ni ko ñu bëri di waxee parce que tamit euh, comme ñu ko waxee question bu am solo nga laaj parce que xam-xam rek doyul parce que xam-xam dafa war am loo xamante ne moo koy accompagner muy des valeurs ay jikko yoo xamante ni jikko yu am solo la parce que yaakaar naa ni boo xasee yaroo Thiénaba rek maanaam lu ci bëri rek yàlla suñu borom dala ciy dimbali mooy ci wàllu jikko jikko na bi ñu ko waxee maanaam jikkoom rafet na parce que nit ki boo boo liggéeyut ak moom rek làmboo wook moom rek xay na ñiy dem di dikk doo mën a xam kii lan moo nekk ci moom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg man eh, bi ma ciy jàpp rek mooy yu baree baree baree baree bari parce que des fois nit dina ñëw ci moom parce que nit ku social la aussi parce que nit koo xamante ne amoo ay jikko yu baax rek mënoo nekk nit ku social parce que social ki nga xamante ne day jël. mais nit ñi nee ku ku a mer la aussi dafa xaw a kii. non non gaawul mer la parce que man gis naa ay circonstances yu bari yoo xamante ni xëy na bu doon ñeneen ñoo xamante ne xëy na euh, amuñu amuñu ay valeur parce que amuñu yenn yar yoo xamante ne am nañ ko mën na demee neneen mën na dégénérer mais à chaque fois da gis ni nit ku dal la parce que nag sama discours dafay nekk discours boo xamante ne à chaque fois discours la boo xamante ni dafay dafay dafay dëggu dafay tegu ci yoon mais lépp moom lu muy def rek da koy def ak xelam da koy def aussi ci xam-xam la koy teg. aussi nee nañ tam ku bëgg jiite la moom lu mu bokk bu jiituwul rek moom du kii. non loolu loolu loolu moom ay wax nit ñi la rek parce que comme ni muy wax rek yi soo fois bu la yàlla dimbalee nga jàng am xam-xam euh, tegu ci yoon souvent lu bari dañ lay dañuy ñëw def benn affaire di la jéem a fakasal xam naa mooy waral gars yi di wax naan ku bëgg jiite mais demeewul noonu. parce que léegi yow bu amoon jikko boo xam ne neexul ci moom boo bëgg mu bàyyi ko ban jikko la. jikko boo xamante ni neexuma ci moom. Hmm. mooy xalifa. Euh, euh, hmm. man li may wax rek comme sax sax du baax gopp mais hmm. moom dafa dafa dafa ouvert. parce que benn ouverture bi ci kilifa tamit euh, baax na mais quelque soit tamit di nga am benn réticence boo xamante ni nit ki daf ko war a am. parce que li ñuy li ñuy faral di wax mooy. nit ki tamit ko fekkee tey jii da nga war a jiitee ab gox des fois tamit il faut que nit ñi ñëw ci yow ngay càmbar di gëstu ñoom ñooy kan cest à maam dafa ouvert comme gisee rek da lay jël taf la ci boppam maam mel ni maanam yéen bokk ndey ak baay mel ni tey la xam mm-hmm. xalifa tey jii ñi ñëw ci moom ñëpp kim xam tey ak kim xam bërki dem moom la yamane man daal du may am benn jikko boo xamante ne euh, critique lay doon bu may def ci moom loolu laa loolu laa ciy def. macha allah Ibrahim Ndiaye loolu am na solo xam naa dañuy continuer ba tey ci question yi xalifa lan moo tax mu soobu ci politique. waaw li tax xalifa euh, Ibrahima Ndiaye soobu ci politique daf koy waral ci daf koy wax ci intervention bi bari li ci li ci li ci kii mooy doomu Canaba bala yàlla di dimbali na ko mu jàng ba am teraanga di ci nekk di ci suturlu ak njabootam mënoon na cee yem mais comme li réussir naa am na oto am naa kër am naa loolu pour man loolu doyul te moom loolu la gëm moom li mu gëm mooy tey jii dafa war a apporter un plus ci société bi nga xamante ne moom la bawoo bàyyiwu fa woon dem wuti xam-xam ñëwaat mu delloowaale leen njukkal comme ni koy waxee rek loolu bu fekkee defu ko rek day mel ni war leen duru te bëggut a war askanu ba loolu ma waral ma dugg si si léegi bëgg ñëw changer dëkk bi am lu mu apporter dëkk bi hmm. moo tax mu dugg ci politique Mm-hmm. loolu su ma déggee. oui looloo tax mu dugg ci politique. Mm-hmm. léegi lan moo tax coalition Yewwi Askan Wi jiital Khalifa Ndiaye. waaw li tax coalition Yewwi Askan Wi jiital Khalifa Ndiaye yaakaar naa ni foofu mën naa cee développer lu bari parce que comme ni ñu ko faral di waxee daanaka suñu intervention yu bari leeral nañ ko. mooy coalition Yewwi Askan Wi amoon na keneen koo xamante ni moom la taboon comme candidat. parce que Yewwi Askan Wi bi ñuy tànn seen candidat boobu Khalifa nekkul ci coalition bi. waaw boobu nekkul ci coalition parce que mi ngi bokkoon ci beneen coalition bu ñu naan gox yu bees boo xamante ni dafa regroupé plus de cent jeunes yoo xamante ni bàyyi ko nañ ci euh, communes yu bari moom ci la bokkoon bokk ci ñi nga xamante ni ñoo nekkoon initiateurs yi ba taxawal lu mel noonu mais nag euh, coalition bi ñu naan as Askan Wi amoon nañ keneen koo xamante ni moom nekkoon seen candidat. Ngouda Souaré muy Ngouda Souaré mais Ngouda dafa wax lu am solo di ko saluer de passage ci générosité am ci engagement am ci commune Thiénaba mm-hmm. parce que lu ne nit ñi dig nañ ko ko pour mu teggi tànkam ci engagement yi xam moo ko am moom la am ak euh, li nga xamante ni moom la posture bi mu jël di dénoncer li nga xamante ni moom la mauvaise gestion mm-hmm. bi nga xamante ni ki fi nekk moom lay def ci ci commune bi léegi ki nga xamante ni Ngouda Souaré dafa wax lu am solo man nekk maire rek it itteelu ma takk ndomba gi naan may maire loolu itteelu ma li ma itteel rek mooy commune Thiénaba changé si dans tous les secteurs li ko waral nag mooy bëggul doon maire rek turu maire rek di wuyoo ni maay waaw moo lañ tabb comme candidat loolu soxalu ko li ko soxal mooy mu ànd ceeg koo xamante ne xëy na bu ci àndeek moom yàlla mën na def li mu bëgg ci commune ba mu gën a gaaw comme ni ñu koy waxee rek parce que commune ba point yëpp tous les points sont rouges urgence la nekk comme ni koy waxee moo tax tey jii mu ñëw jàpp ni bu ci àndee ki nga xamante ne mooy Khalifa Ibrahima Ndiaye li mu bëgg yàlla mën na ko ci defal sutura ñu jot ci communiqué nañ. ba tey euh, waxagooma lan moo tax ñu tànn xalifa Ndiaye jiital ko ci bopp coalition Yewwi Askan Wi te jamono bañ koy jiital moom xalifa Ndiaye nekkul woon ci coalition bi. loolu des naa leer. waaw sëñ Cheikh Tidiane li tax ñu jiital ko lenn rek daanaka waxoon naa ko ci sama biir yi wax mooy Khalifa Ndiaye li tax ñu jiite ko benn mooy son profil profil bi mooy euh, tey jii parcours bi nga xam te def na ko jàng na ba am xam-xam am ay lijaasa yu kawe. mais bu ñu waxee coalition waruñoo investir ko nga xamee nekkul ci coalition bi. waaw mais koo xamante ni nekkul ci coalition bi parce que non coalition bi maanaam euh, euh, ni mu tëddee comme ni nga ko waxee bu loolu yoon dàq ko. parce que yaakaar naa ni ñàkk ci coalition du ay sart yoo xamante ni tey jii dañ koy tëral mais rek nit ki bu fekkee yaakaar naa ne am na tous les critères qu'il faut war nañoo def appel dem jëli ko comme mel ne tey jii bu ñu seetoon ne tey jii Cheikh Tidiane lii ñu bëgg yow dañoo def ko waaw dañ ko dañ ko dañ ko woo hmm, ñan ñoo ko woo waa coalition bi ñoo ni ñoom bu fekkee gis nañ keneen koo xamante ne xëy na taxawaayam ci askan wi ak parcours am ak peut-être tey jii le plan ouverture ci la plan des partenariats mën nañ mën nañ ci am mën nañ ci indi loo xamante ni xëy na munuñu ko woon a am kooku bu ko gisee war nañ coalition bi ñan ñoo ko composé woon coalition bi ñi ko composé ay parti yu bari la limal ma leen parce que Pastef ci la bokk mhm. coalition bi naan euh, parti bi ñu naan taxawu Sénégal mhm. Khalifa Ababacar Sall mhm. ci la bokk parti Moustapha Guirassy ci la bokk euh, Euh, euh, nu mu tëri ci Déthié Fall PRP. Hmm, ci la bokk bul ignorer pur pur ci la bokk. pur ci la bokk ci laa jëmoon parti mu sëñ Moustapha parce que Ngouda Sarr mi ngay wax. Hmm. jiitaloon ko ci coalition Yewwi wax. parti yooyu yëpp amuñu kenn ku ñu mën a jiital ci commune Thiénaba bi ba tax ñu dem woowi ji xalifa Ibrahima Khalifa Ndiaye mu ñëw jiite. mais comme li ma la wax rek am na ñeneen ñu mënoon a jiital parce que comme li wax rek coalition Yewwi Askan parce que ni mu composé ak ni mu tëddee. tey jii boo gëmoon làmb kenn ci ginnaaw rek indi ko war na mën a jiite mais ku ci nekk am na critères yoo xamante ni am na ko mais dafay am loo xamante ni ñii dañ koy am même bu ko ñëpp day am tamit day am loo xamante ni mooy moo moo koy moo koy couronné mooy tax moom gën a mat bul bul bul rafetal waa coalition Yewwi Askan Wi nee leen coalition Yewwi Askan Wi kon daal dañoo gis ni Khalifa Ndiaye moo leen raw rek ñu dem jëli ko loolu garaawul noo du question loolu parce que Khalifa Ndiaye coalition Yewwi Askan Wi parce que ma nga cee lim Ngouda Soare man cee lim Moussa Ndongo man cee lim mu Mansour Dieye ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañ jiitu xam ay borom xam lañ. Ah, mais war nañoo mën a jiite. mais dafa fekk ni maam xalifa dafa am loo xamante ni mi ngi ko doon dafa gën a baax. non ñoom ñëpp a baax. <laughs> ah d' accord ñoom ñëpp a baax mais comme li ma la wax rek parce que xalifa am na benn parcours boo xam ne am na ko o niveau international xëy na bu fekkee daana critères yi tax loolu bàyyi leen loolu ay niveau international loolu kenn judduwaale ko. non mais kenn du war nekk maire rek di nga am possibilité pour mën a wuti ay partenaires pour mën a jéem a xool noo développé sa dëkk. mais Cheikh loolu du ma ci la oto kenn judduwaale wu ko ay partenaires kenn judduwaale wu ko ay yére yu rafet kenn judduwaale wu ko moo tax d'accord naa si li nga njëkkoon a wax mooy xam-xam bi ak yar gi. mais ay partenaires ak yooyu moom. non non non du ma d'accord loolu ak yow. ayca du ma d'accord loolu ak yow parce que xam li tax mooy. Mhm. Euh, gis nga maire yi léegi parce que liñ naan acte trois de la décentralisation. Mhm. dañ leen a jox ñoo xamante ni seen céggal gu ñu mën a doxal. Mhm. wut ay partenaires. Mhm. état dañ leen a libéré ni lay wuteel ay partenaires doxal. dañ naan dañ leen jox autonomie. pour ñu mën a doxal. seen i maire yi. loolu nag du fekkee yow maire bi fi nekk. xëy na tey jii euh, euh, mënoo am yenn partenariat bi wala tey jii mënoo am benn ouverture au niveau international même aussi dans le pays. maanaam a copter yenn partenaires pour ñu jàppale la. pour yoon bi nga jël pour mën a rehausser le niveau de développement bi nga xamante ni commune bi war na ko am. partenaire dañ koy que parce que fi nekk pendant sept ans ci commune Thiénaba mais gis ñu fi benn partenaire benn partenaire boo xamante xëy na def na fi loo xamante ni de manière. est-ce que wuti nañ ko exceptionnelle boo xamante am na fi. est-ce que wuti nañ ko. non wuti nañ ko mais partenaire bi ci bi ci ci daax xam nga mooy ban sëñ Cheikh. barki démb indil nañ éco fii. waa indil nañ ñu fi yenn échographie mais partenaire xam nga lan moo ci neex sëñ Cheikh Tidiane. Mhm. mooy partenaire bi nga xamante ne day wax maire day wax ak maire bi face to face ñoom ñaar ñu jàkkaar day mën a wax ak yow bu la waxee nga tontu joxaat ko mais yow partenaire tey ji bu la bindoon tey ji yow yàlla def na yow tey ji amoo benn connaissance bi amoo benn xam-xam bi nga ni sa waay ñëwal lettre na parce que que maire yi dafa sensible parce que des fois ay courrier yoo xamante dañ la ko envoyé des courriers confidentiels yoo xamante ni dafa war a nekk entre le moom dong moo war a xam lan moo nekk ci yóbbu mais est-ce que d'accord nga ni Thiénaba li mu am ci ressource même bu mënul développer Thiénaba 100 pour cent mën na koo développer 50 pour cent est-ce que d'accord ci loolu. kan mën na koo développer 50. Thiénaba li mu am ci ay ressources. waaw bi li muy génnee. waaw carrière bi li muy génne déjà foofu bëggoon naa ci àddu euh, même du fekkee carrière bi mën na développer Thiénaba à 50 pour cent loolu doyul parce que tey jii du fekk dañu yem ci benn budget boo xamante ne ça fait 200 mais bu dee doyul rek. te ñu gëm ni mën na koo développer cinquante pour cent kon bu ñu amee ay ndaw yu engagé yu taxaw rek war nañoo mën a réaliser dara ci dëkk bi. waa mais day fekk tamit parce que loolu lépp dafa am lu koy accompagner. damay bañ ñu basé wu ci ay partenaires ak yooyu ba sàgganee li nga xamee ni ñun ñu ngi koy jot a am. non dèjà yow li ma lay wax rek mooy tey jii dégg nga scandale bi am ci carrière Thiénaba. si te loolu noonu du fekkoon tey jii jaaral nañ ko fi mu war a jaar. def la répartition li li ñu war a li ñu naan bu fekkee parce que tey jii dañuy def orientation budgétaire dañuy dem ci askan wi laaj li nga xamante ni mooy priorité. parce que tey jii bu fekkee xam nga lan mooy priorité ci Thiénaba lii laa war a def lii mooy urgence bi mooy fi mooy fonds yooyu bu ñëwee dañ ko war a jël jëmale ko foofu mais du fekkee yow da ngay jaawale sa poste ak poste askan wi jaawale li nga xamante ni moom nga war a def ak ak leneen. kon même fonds yooyu bu fekkee nekk na fi boo ko deful fa nga ko war a def du feeñ. da gis ni kon développement boobu wër wër gis ni bi fi nekk dafa jaawale poste askan wi ak poste am. parce que li may li may des fois li may rectifier parce que li may rectifier souvent ci canaba. Mhm. nit ñi di ko wax mooy lan mooy canaba amul ressource. Mhm. mairie canaba am na ressource. bien dañ naan ressource yi fi ne mënoo koo comparer ak yeneen maire yi mënoo koo comparer ak maire Ngoundiane. Mhm. mais ressource yi ñu am ak suñu néew. liñ am bu ñu ko defaloon. xanaa sax li ñu am ku néew. par pendant sept cent ressource bi ci gën a mag mooy la xalif général. waaw ressource bi ci am na possibilité maire am na possibilité yeneen maire yi lu ñu mënta am moom mu mën koo am ci turu xalifa bi. waaw loolu dëgg la loolu dañ na koy parce que mairie Thiénaba dafa nekk ci mairie ci kër goo xamante ni dafa am xalifa général nekk ci kër këru diine. léegi kon ki fi nekk dafa jaawale poosam ak poosu askan wi. ak li war waaw ki fi nekk daal man daal li ma mën a wax ba mën koo wax Cheikh Tidiane mooy li wax. mooy du fekkoon fonds yi nga xamante ne tey jii nekk na ci gafak askan wi ñu delloo ko fañ ko war a delloo fañ ko war a delloo kon xëy na tey jii bu fekkoon à l'heure actuelle ñuy wax kon moo maire bi fi nekk day taxaw di def bilan. d'accord kon dootul demaat ci askan wi di dagan seen baat. d'accord est-ce que euh, Ibrahim est-ce que Khalifa maîtriser na réalité commune bi. waaw loolu moom dama naan la Khalifa maîtriser na réalité Thiénaba. à cent à cent pour cent. parce que li tax. li koy firndeel rek mooy programme bi nga xamante ne am na ko ci Thiénaba fësal ko nag parce que c'est la première fois benn candidat di dagan baatu askan wi ni jox leen ma ma jiite am loo xamante ne jël na ko teg ko ci table bi te lool dafa am solo parce que tey jii Cheikh Tidiane ni nga ko xamee ñëpp xam ko mooy tey de ñoo nekk ci dëkk boo xamante ni kenn mënatuloo nax kenn parce que daanaka fii xale yi ñu koo fi jël def na ay études supérieures xam na lu bari kon xam ñun commune ba kenn mënatu ñëw nax xawma bande waaye bii kenn mënatu ñëw nax kon xalifa maîtriser na liñ naan commune Thiénaba parce que tey jii boo xoolee boo demee dans son programme ci volet yëpp mooy ci le volet foncier économie bi mooy euh, assainissement bi loo assainissement bi ak loo mën di jël ak enseignement parce que loolu dafa nekk volet boo xamante ne développé na ne soo ma ko permettre wax ci ay ay ay yenn points yoo xamante ne dinañ ko ci kii. kon après ñu ñëw ci programme bi ah. ok bëgg naa xam lan moo tas mouvement jeunesse Thiénaba bi. parce que élection yi bi muy jub si ndaw ñëpp dañoo àndoon doon benn di xeex di xeex di xeex ñu ni li fi nekk kat baaxul nañ ko fi jëlee ba élection yi des weer mu tas. waaw parce que man li ma jàpp mooy. Euh, euh, commune Thiénaba à un moment donné gisoon nañ ni mauvaise gestion am na ñëpp di xeex jëm ci loolu ba xale yi fi nekk yëpp ak mouvement jeunesse ak yenn ci ay mag ñëw bokk ci kuréel googu noonu di xeex li nga xamante ni moo fi nekk. ba nekk un kuréel goo xam yaakaar naa liggéey nañ ci pendant deux ans. wala Talla Diagne da leen ëpp moo tax mu tas. non du Talla Diagne dañoo ëpp gàllaaj moo tax mu tas parce que mbir dafay toll foo xamante ni seex euh, ñii mën a ànd ñooy ànd rek. parce que yaakaar naa ne bu ñëwee coalition Yewwi Askan Wi dafa regrouper lu ëpp huit partis yoo xamante ni nekk nañ ci kon yaakaar naa ne loolu dafay dafay dafay firndeel ni rek maan ñun coalition bi ñu yor c'est une grande coalition et liñ naan crème bi nga xamante ne moo nekk au niveau de de la commune de Thiénaba ñoo ci nekk parce que koo jël rek am na gox boo xamante ne fala ba woo bokk ci li nga xamante ne mooy coalition Yewwi Askan Wi parce que li may wax rek mooy coalition Yewwi Askan Wi du Thiénaba rek mais parti yooyu nag yu ci bari tur bi rek a ci des parce que ay Pastef am nañ membre feneen ay ñeneen am nañ membre feneen tur bi rek. non non mais mais tey jii coalition Yewwi Askan Wi amee nii ñu bari non non parce que Rewmi mi ngi ci coalition Yewwi Askan Wi une partie de l'AFP mi ngi ci coalition yenn Yewwi Askan Wi ak ñi nga xamante ni dañoo fàqe au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci ñu ngi ci coalition bi. waaye ba tey waxuma lan moo tas euh, mouvement boobu. non comme li may wax rek mbir day toll foo xamante ni. mais ñàkkul ay tet yoo nga xamee ni li ko tas si ñoom la sababoo. ah man de yaakaar naa ne daal toutes les négociations. nee nañ Khalifa Ndiaye moo ko tas. non Khalifa Ndiaye tasu ko. Hmm. parce que Khalifa Ndiaye du fekkoon moo ko tas. day dem ak boppam. kon kenn du ko ñëwul tey jii di ko jiital ci coalition Yewwi Askan Wi. léegi kon wax ma lu ko tas. waaw mooy li ko tas rek mooy li ma wax rek parce que am na ñoo xamante ni intention bi ñu amoon mooy. Hmm. bi ñëw ci coalition bi parce que man j'étais au début à la fin de du processus yi nga xamante ni moo ngi doon am. ci parti bi nga xamante ni opposition bi ñoo ko jiite woon maa ngi woon ci négociation yëpp mais nag euh, am na ñoo xamante ni euh, dañ naan su ma jiitewul kenn du ma jiite. waaw loolu lañ wax Khalifa Ndiaye la. waaw non Khalifa waxul loolu. parce que hmm. loolu du fekkoon moo am nit ñi duñ topp ci ginnaawam ànd ak moom di liggéey jusqu'à aujourd'hui hmm. kon yaakaar naa ne loolu moom amal gaam la boo xamante ni nit ñi ñoo koy def rek. Hmm. mais jàpp ma ni euh, Khalifa Ndiaye mooy ki nga moo tas coalition bi. léegi tas boobu ñu tas. est-ce que du avantage wu ki fi nekk. non jàpp ma avantage wu ki fi nekk la. lu tax. jàpp ma ni candidat yi ñaata lañ. candidats yi nombre de neuf. neuf. neuf ñoo fi nekk. ci commune nu Thiénaba ñaata village. Euh, sur euh, trente six villages trente huit villages. ak ay ak ay amoo. Oh. boo koy dafa safe fekk day nekk au de quarante six vers quarante huit. jaadu woon na neuf euh, li tubaab di wax rek l'impossible nul n'est tenu. parce que bu ñu demee parce que li ñu gënaloon mooy Cheikh jaan mooy ñëpp ñëpp ñu ànd parce que c'est la jeunesse parce que ñoo bokkoon di xeex guddeeg bëccëg di dem tribunal ko ñëw di nekk ci garab yi di dugg ci rox yeeg roxaat yi kon suñ sañoon ñun ñëpp dañuy ànd mais comme li may wax rek ku amul la fa sës am la fa ko amul la fa gën am la fa am la fa sës yaakaar naa loolu mooy waral mais comme li may wax rek coalition Yewwi Askan Wi comme fexe na ba regroupé huit partis ak mouvement kon yaakaar naa ni gàcce ngaalama kon li ñu mënoon def nañu comme damay dellusi ci li nga wax sànq rek mooy est-ce que tas gi arrangé nañu man damay wax ni man bokk naa ci ñi gëm ni tas gi arrangé nañu. parce que boo gisee les neuf candidats yi fi ne Cheikh Tidiane. Mm-hmm. parce que am na lii may wax ni mooy turu candidature la rek. Mm-hmm. turu candidature la. comme ñan. non am na ñu fi nekk du ma tur. waaye tuddal rek. du du ma tudd tur. day émission bi gën a rek. non day tax émission bi day euh, gën a neex mais. candidat yi fi nekk yëpp jox naa leen cër aussi di leen ñaanal. est-ce que du Khalifa Ndiaye kon moo kii parce que gars yi nee nañ ay boy yu ndaw ndaw ndawaan rek ñoo koy topp. non non ay boy yu ndaw ndawaan parce que comme li ñuy wax rek mbooloo moo gis dafay am ay ndaw mais aussi dafay am ay mag ñoo xamante ne seen xel rafet na. mais est-ce que am na entourage bu baax. non si am na entourage bu baax. parce que léeg-léeg bu jëfandiku nga gis ni est-ce que entourage bi c'est bon. non comme lan. ah xam nga kay ma xam. non à en tout cas li a li ma mën a li ma mën a wax rek mooy dans toutes bu fekkoon am na faay wala am loo xamante ni ndaka su dul noonu la ñun ñooy taxaw ni ko a ah, xalifa li nga def ñu lu wuñ ko boo lëkkatee defel nii waxal nii nangam sang d'accord mais jaakaar naa ñun bari na fu ñu dem sax nit ñoo xamante ne xëy na xamuñu Khalifa Ndiaye mais li ñuy apprécier mooy son discours d'accord parce que la pertinence de son discours wala idée yi nga xamante ne ngi koy développé jëmale ko ci commune Thiénaba moom waral ñu bari di ànd ak moom ci loolu. xam naa après élection yi faa ma dalal Khalifa Ndiaye bu léegi lan mooy seen programme. waaw programme d'abord fi may jiital mooy programme bi dafa sukkandiku ci programme yeewi askan wi wala da ngeen a xalaat programme boo nga xam ne moo dëppoo commune bi. waaw déjà tey jii boo xali boo jëlee Khalifa Ibrahima Dia à sa personne. Mhm. moom dafa si sillonné commune Thiénaba pendant des années. Mhm. jël li ñaan ay photocopie ay rames de papier ay bale des actions sociales yoo xamante ne mën nañ ko kenn mënu koo wax ci télé. yoo xamante ni man pour man action sociale boo koy def nekkul ni ah diw kat jël naa ko ordonnance wala nangam sangam mais li booy mooy nga def ko ci suuf yu bëri yu ma xam man cee man koo man koo euh, teg ci bët man koo témoigner mais yaakaar naa ne jëruñu ko jëru ko parce que dafay def te yàlla tax parce que des fois nga jàppal ni te ta àndut ak yow mais da koy def te yàlla tax parce que loolu moo ko war mais comme ni ma ko waxee Khalifa Ibrahima Ndiaye ak ñi nga xamante ni dañoo bokk ci Yewwi Askan Wi dañuy nekk ay leaders yoo xamante ni xëy ñu rek toog kër dañoo sillonné commune Thiénaba amoon déjà un programme boo xamante ne dañ ko ficelé woon pour la commune de Thiénaba parce que kuy dagaan baatu askan wi wala nga koy laaj war nga am un programme ficelé ko boo xamante ne da nga ko ficelé jëmale ko ci askan wi moo waraloon après bi ñu jëlee Khalifa Ibrahima Ndiaye jox ko euh, mu nekk candidat Askan Wi dañoo xool tëju lëlu ci loolu tëgg benn programme boo xamante ni programme bu 40 pages jëmale ko ci commune Thiénaba moo nekk programme boo xam jàpp nañ mooy le meilleur programme pour la commune de Thiénaba parce que ay borom xam-xam moo ko seq ay borom euh, xalaat yu rafet tamit ñu seq programme boobu liggéey ci pendant aussi des des liggéey ci ay ay ay ay ay ay ay jours des mois des années ba génne euh, programme bu mel noonu. résumé ma ci programme bi. waaw programme bi li ma ci li ma xam xam. Euh, yéenay ñan. waaw programme bi li ma ci mën a li ma ci li ma ci mën a résumé bari na mais comme que waxtu bi dañoo dab daanaka dama ci jukki ay points rek ma dégtal ko askan wi parce que mais moment bi ñuy wax ni sax ñu ngi nekk di def euh, lancement programme bu Yewwi Askan Wi fii ci kër gi. Euh, comme li may wax rek mooy programme bi li phase bi ci njëkk dañ koo wax l'éthique et la bonne gouvernance mooy bu fekkee yow da ngay laaj baatu askan wi wala ñu jox la ko li ci jiit rek mooy li nga xamante ni tey jii dañ la koy jox. nga war ko liggéeyal askan wi mooy loo xamante ni da nga koy teg ci ay valeur teg ko ci njub ak jubal moo waral page bi njëkk ci euh, programme bi moo tax dañ ko dañ ko dañ ko jël féetale ko ci loolu parce que tamit euh, li war mooy tey bu fekkee da ngay laaj bas euh, baatu askan wi bañ jox la mooy seet seeti seeti jaan mooy lu njiit yu bëri dul def mooy comme que da ngeen maa joxoon ñetti dërëm bi may falu li laa fekkoon ci kees gi lii laa ci def lii laa ci def lii moo ci des yaakaar naa ne képp koo xamante ne da nga yor mission wala nga yor baat di doxal ci loolu ci lañ lay xaar parce que mooy tax ñu xam ni maanaam il y a gestion équitable ci li nga xamante ni moom lañ la dénk beneen bi ci jiitu mooy ku ne xam ne commune Thiénaba dafay commune boo xamante ni dafa rëy macha allah regrouper ay villages yu bari aussi mu am benn particularité boo xamante ne daf ko am mooy commune Thiénaba dafa am xalifa général boo xamante ne dafi dafi dafi nekk ñu fiy def gàmmu Thiénaba muy accueillir euh, accueillir ay pèlerins chaque année kon yaakaar naa dëkk boobu war na am li nga xamante ni mooy hôpital bu mucc ay hôpital boo xamante ni maanaam ab plateau technique am lépp loo xamante ni hôpital daf ko war a am parce que liñ ñu naan euh, euh, organisation mondiale de la santé bi nga xamante ni mooy càmbar li nga xamante ni dafa jëm ci wàllu wér-gu-yaram li muy wax rek mooy ab dëkk bu àggee ñetti téeméeri nit wala lu ko ëpp c'est-à-dire que 5000 habitants te commune Thiénaba ñu ngi ci 30 000 habitants yaakaar naa war naa am un hôpital boo xamante ni de mi ngi ci seen programme. hôpital boobu mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci suñu programme. Mm-hmm. parce que déjà defal nañ ko un maquette boo xamante ni. Mm-hmm. mi ngi ci biir programme bi. Mm-hmm. beneen bi ci topp sëñ Cheikh Tidiane mooy euh, jàng ak jàngale comme que chaque année. commune Thiénaba ba dafay jël loo xamante ni da koy jël jëmale ko ci étudiants yi lii mu jëmale ko ci école française ñu nekk ci dëkk boo xamante ni nekk ci commune boo xamante ni li fi nekk ci daara ëpp na deux cent et quelques daara kon nag dafay baax ñu jël une parti du programme ñu jëmale ko ci daara yi parce que ku wax Thiénaba wax alxuraan parce que Thiénaba ku wax Thiénaba wax ku wax commune Thiénaba wax Thiénaba Seck wax Mbaleen wax yeneen dëkk diine yoo xamante ne dañoo nekk ci commune Thiénaba kon yaakaar naa li war mooy alxuraan daf ci war a saf sap kon yaakaar naa moo tax ñu jël une bonne partie du programme jëmale ko ci daara yi jëmale ko aussi ci ci ci la nouvelle technologie parce que nit ki du fekkee dafay jàng rek war na aussi ouverture li nga xamante ni mooy les nouvelles technologies de la de l' information et la communication. doo ma tënkal tuuti ci seen programme ci daara yi. waa daara yi parce que li ñu bëgg mooy comme subvention ni ñuy amee ñu jëmale ko ci école français yi jëmale ko ci étudiants yi. war naa am une partie aussi dañ koy jëm jëmale ko ci daara yi benn subvention yoo xamante dañ koy jël jëmale ko ci daara beneen partie bi mooy bëgg nañu incha allah bu ñu yàlla joxee euh, commune ba ñu indi benn am benn site boo xamante ne dañ ko aménagé jox ko association des sëriñ daara ñu aménagé ko def fa seen def fa seen makkaan di fa doxal seen i activité aussi def fa li nga xamante mooy un salle informatique ba xale yi buñ ñu génnee ci daara ji mën xam les nouvelles technologies man ci am ay jumtukaay yoo xamante dañ ko mën a utiliser di ko mën a manipuler comme waa français bi ni koy defee loolu daal mooy li nga xamante ni benn part la boo dañ ko jëmale ci ci ci daara yi. wàllu euh, comme ndox meeg yooyu nag. waaw comme ni koy wax rek. baagaar naa ni canaba moom canaba amul ndox amul ndox bu baax. <laughs> waaw wax dëgg yàlla canaba moom ku ne xam na ni daanaka lu ëpp fukk at ak juróom ak nii ñoo am problème ndox parce que li ko waral mooy. bi ñu comme ni ko xalifa di waxee a chaque fois ci programme ak ñenn ñi nga xam te nañ koo bokk ak coalition Yewwi Askan Wi mooy euh, wàllu ndox bi dafa am solo dafa am solo ci dundu doomu aadama li tax mooy euh, Thiénaba forage bi li mu yenu da ko daf ko attanu li mu yenu c'est-à-dire que branchement yi mu attanu ko. est-ce que gars yaa ngi fay. non gaa yi gaa yi gaa yi li ma mën a wax daal mooy. mais balaa ngeen a bind programme war ngeen a gëstu ba xam lan mooy jafe-jafe yi ngeen doog a bind. waaw jafe-jafe yi ci laa ñëw nii. parce que ñun parti programme bu ñu mën a développé. mais forage bi jafe-jafe yi ñu nekk nii est-ce que nit ñi ñu ngi fay. non man euh, déglu rek ma wax la ci ci ci ci ci wàllu ndox mi. Mhm. parce que ñun ci parti bu nekk ci suñu programme. dañ naan lii lañ fi fekk lii lañ bëgg a def mais xaalis bi bi ñu ko bëgg a defee fii lañ koy jëlee. Mhm. loolu lu am solo la mooy xaalis bi ñu ko bëgg a defee fii lañ koy jëlee kon yaakaar naa ne comme ni ñu ko waxee ci euh, wàllu ndox mi Thiénaba ku ne xam na ne branchement yi fi nekkoon branchement yi loo xamante ni yàgg na ñu ngi ko defoon 1983 xam 1983 ak léegi boobu ñun juddooguñ loolu yàgg na kon yaakaar naa ne li war a def mooy defaat beneen réseau bu bees boo xamante ni nañ koy defal Thiénaba pour ndox mi wàllu ndox mi mu nekk loo xamante ni dañ koy dañ koy dañ mën a saafara problème yi ci nekk yeneen bi ci beneen problème yi nga xamante ni commune Thiénaba dafa ko am parce que wax naa la sànq ni la wàllu ndox mi forage Thiénaba li mu yenu dafa diis pour que loolu nag ñu mën a saafara wàllu ndox mi il faut que tey ñu aménager yeneen forage yoo xamante dañ koy def bu ñu ñëwee incha allah mooy côté xay jàpp jëm Kër Matar Fall Mbaba Fall jàpp jëm Pëlga jëm ci kaw war nañoo aménager foofu benn forage boo xamante ni branchement yi mu jëloon jëmale ko côté boobu dañ koy débrancher jël def ko ci forage boobu moom mu mu mu mu jël prendre en charge dëkk yi féete foofu. ñàkk xëyu ndaw yi nag. Hmm? ñàkk xëyu ndaw ñi. waaw ñàkk xëyu ndaw yi comme ni ma koy waxee rek cest à que il faut ñu comme ni ma koy waxee rek parce que bu fekkee yow tey ji dañ la war a jox dañ laa jox nga jiite responsabilité ci yow nga wutal xay xëy ndaw ñi ay xëy nga wutal leen ay xëy mooy tey jii mënoo ji jii Cheikh Tidiane soxla 1000 francs wala mu soxla 10 000 nga jëkkati jox ko comme li ko wolof di wax rek du may nit ki jën mais dama koy jàngal ni ñuy nappe kon mooy il faut que ñu créer ay situation créer ay conditions yoo xamante ni day permettre jeunes yi nga xamante ni jàng ba pare wala ñi nga xamante ni am nañ ay diplôme ñu mën a ñu mën a am fu ñu xëy mooy comme li ma la waxoon ci dans le cadre de des des mooy ñu mën a euh, ñu mën a am ay partenaires yoo xamante ni dañuy defal ay entreprises wala ñu defal ñu ay sociétés yoo xamante ni nit ñi. dinañ mën a am foo xamante dañ fay dem daan seen doole am loo xamante koy mën a yóbbu seen seen ñi jàngul nag jàngul waaw néew ñu jàngul comme li ma lay wax rek dans les secteurs amul lenn loo xamante ne suñu programme bàyyi na ñi nga xamante ne tey jii dañoo jàngul am na beneen euh, ay ay ay ay ay ay formation yoo xamante ne dañ lay defaraat euh, réforme dañ leen di formé waat utal leen ay euh, utal leen ay ay ay ay formation yoo xamante ne bu ci génnee dinañ mën a am dinañ mën a am xëy ci côté bu nekk nag ci secteur boo jël ñi nga xamante ne jànguñu woon wala ñi nga xamante ne tey jii dañu doon jàng arrêté ñoom ñëpp rek loolu programme bi prévoir na ko incha allah dinañ ko digtal askanu Thiénaba ñu xam ne maanaam ñun lii lañ fas yéene def buñ buñ ñëwee incha allah. wàllu marché est-ce que Thiénaba warul am marché. dama yàlla baal waaye marché Thiénaba am na ñoo xamante ne ndeysaan bu wàccee télé bi dañuy jàpp ni sax fi poulailler la boo dañ ciy jaay ginaar c'est catastrophique. ndaysaan suñu yaay yi nga xamante ne dañoo nekk foofu di jaay buñ ñëwee sax ku ci nekk danga nga fay ñëw rek laps de temps ba nga fay passé parce que mënoo fa passé benn temps bi. parce que conditions yi réunir. marché ndugg la rek mais marché marché centre commercial. bon waaw loolu loolu laa wax. que tey jii bu fekkoon gis nga maquette bi maquette bi ñu defar pour euh, euh, marché ba dañ ko def à deux étages marché boo xamante ni marché bu mucc ayib lay doon. ba xamante ne dafay am lépp condition yëpp dafay am dafay am chambre euh, euh, chambre frigorifique boo xamante ni ñi nga xamante ne xëy na jaay nañ ba wàcc am loo xamante ne dañ ko war a denc ba du yàq ñu am ko denc ñi xamante ne xëy na am na ay besoins yoo xamante ne bu ñu ñëwee ci marché bi war nañ ko mën a def lu mel ni toilette lu mel ni jàkka tout les conditions parce que dëkku diine lañ def lañ wax foo dem rek war na mën a am loo xamante ni daf koy mandargaal loo xamante ni day jëm ci diine lu mel ni toilette wala jàkka wala nit ñoo xamante ne bu ñu mënee soxla Euh, man faa def seen i seen seen yenn besoin yi mais tey jii ku euh, euh, nu mu tëjee marché Thiénaba tey jii boo fa demoon tey jii am soxla doo ko mën a doo ko mën a satisfaire kon loolu c'est catastrophique ci dëkk boo xamante ni tey jii tey jii mënoo wax Sénégal te tuddoo Thiénaba kon yaakaar naa ne ñun tey jii li tax ñu toog ba si yàgg ñu ne nañ dugg ci langue politique mooy Thiénaba dafa nekk dëkk boo xamante ni kenn mënu koo génn ci histoire wu Sénégal. macha allah Ibrahim mm. est ce que ndaw ñi dañoo war a bàyyi maanaam que ni buñ jotul mairie bi rek duñu liggéey est ce que mënuñoo liggéey sans mairie sans ñu jot ci mairie bi. non mën nañoo liggéey saa ñu jot ci mairie bi mën nañoo liggéey sans jot ci mairie bi comme ni ñu ko doon defee parce que ñun waxuñu rek dañoo tooguñu rek ba soxla mairie bi doog di jëm ci askan wi wala ñuy yëngu dañ doon yëngu avant ñuy laaj mairie bi parce que ñu ci bokk ñu bëri ñu bokk ci coalition bi. dañoo def seen formation ba mu àgg nekk aussi di liggéey tey jii bu fekkoon tey jii yàlla def na ñu jot ci mairie bi ku ci nekk day delluwaat sa sa liggéey nekk ci fa nga nekkoon kon yaakaar naa ne ñun tooguñu bay laaj mairie bi rek naan dañuy dañuy dañuy dañuy liggéey wala dañuy bëgg dara comme ni ma ko waxee sama biir yi wax rek ñun yàgg nañu sonn ngir na Thiénaba. macha allah nu ngeen gisee campagne bi. waa campagne bi. lu leen àll bi jot a jot a wan maanaam mbir yi mi ngi xeeñ neex wala. wax dëgg yàlla. Eh, la ñuy ñaan rek yàlla cat ban ñu dugg comme li muy wax rek parce que adduna moom fii li jar ñaan rek mooy sant yàlla sant yàlla moo jar ñaan parce que demoon na ba tey jii xëy na ñaan xalifa Ndiaye bu ñu daan génn dañ leen rey mais tey jii ku mën a def jàngat te naxoo sa bopp di nga xam ni maanaam depuis un certain moment depuis trois mois ou quatre mois euh, coalition Yewwi Askan Wi dafa téye li naan la scène politique bi nga xamante ni moo nekk au niveau local. est ce que tegoo ko ci parparloo. non teguma ko ci parparloo. Hmm. teguma ko ci parce que li may wax nii rek ay ay dama ko teg ci ay base yu leer nañ. te ko te aussi du man rek du fekkoon man rek maa ko wax. non man moom ko doo dégg ci yow. waaw waaw d' accord mën a nekk. waaw parce que xay na yow sa tànk bëriwul. Euh, ah. bëriwul loo xamante ne da ngay xëy na canaba nga nekk. Mm-hmm. yaa ngi yaa ngi nekk canaba mais bëriwul looy ci yenn gox yi. parce que man comme li wax rek village bu nekk ci commune canaba rek mën naa koo limal jàppal la ko village par village amoo par amoo. parce que comme li may wax rek mënoo di ñëw da ngay dagan baas wax ne di ko laaj te xamoo communication ba comme li ma koy wax rek. dañ koo dañ koo xam bu baax a baax a baax. macha allah tabaarakallah mm. <laughs> yaakaar naa ni question yi leer na. Mm. mbokku téléspectateurs yi dégg nañ euh, li nga xam ni tontu nga ko bu ko defee rek euh, lan ngay wax sa yeneen naataango yi nga xam ni yéen a nekkandoo ci terrain politique bi ba ñu fexe ba jàmm am. waa li may wax rek mooy man li ma mës a gëm man parce que à l'école bi ma fa nekkee école di jàng nekk jeune lañ ma daan wax njaay politique kon tey jii su ma delloo dugg ci langue politique yi yaakaar na ne du lekk loo xamante daf may bett mais li ma mës a gëm rek mooy un débat d'idées débat boo xamante ne dafay dafay dafay tegu ci des arguments mais pas un débat de personne c'est-à-dire man li ma gëm mooy su ma demoon ci kër sax di porte à porte ma may wax programme laay wax mais du jël nit def ko sama programme def ko di ko xeex wala may wax loo xamante ne dama koy jëbale ci ci ci deram musuma dem fenn wala man candidat yi àndal aussi wala ñi waxante xamante ñoom laay liggéeyal ñu dem ci kër di tudd nit wala ñu naan diw nangam diw nangam. ñun on a un programme boo xamante ne vraiment doy nañu sëkk. macha allah amuñu lenn loo xamante dañ koy wax ci loolu moo jaadu loolu moo jaadu fépp rawatina ci commune bu ceena Thiénaba. Mhm. nañ la bàyyi nga tàggatoo ndax temps bi dab nañu. waaw Serigne Cheikh jaan kontaan naa bu baax a baax a baax baax ci émission bi ngeen ñu dalal. Euh, ci ba vingt 24 di ñaanal euh, euh, directeur bi Serigne Talla yàlla yàlla sàmm ko li nga xamante ni bëgg na ko ci li nga xamante ni moom lay yëngu suñu borom defa ko lu lu kawe njortam di ñaan aussi di delluwaat di ñaanal sumay waajur di ñaanal suma waa famille te parce que tey ji su ma mënee bàyyi tey ji bu ma génn mën a def politique ba nit ñi di ma reconnaître di ma xàmmee ñoom ñoo ko ñoom ñoo ñoom ñoo ma ci jox ñoom ñoo ma ci jox ndigal kon yaakaar naa li may tàggatoo rek mooy di ñaanal commune Thiénaba di ñaanal parce que commune ba jàmm rek la ñu war am sutura rek la ñu a am teraanga rek la war am parce que loolu jàmm moo fi xaj aussi di wax rek di lancer un nappel à tous les acteurs politiques di wax ni lii ñii lii politique rek dafay jeex benn affaire bu ndaw la dafay jeex yaakaar naa ne bala moom mataat 15 jours incha allah ku nekk dégg delluwaat ci say soxla mais su boobaa rek na fekk askanu commune Thiénaba ñu jox gëdd jox aussi baat yeewi askan wi ñu am ndam incha allah liggéey commune Thiénaba su boobaa tamit di joxel di joxaat benn beneen appel ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay ñu delluwaat jox leen loxo ñu ànd liggéey commune ba xam ne commune Thiénaba ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñoo bokkoon ñoo bokkoon ASC bokkoon classe yi. bokkoon association yi bokk lépp. kon nay rafet rek di ñaanal tamit euh, euh, toutes les candidats yàlla defal leen jàmm defal leen sutura defal leen xéewal. mais di ñaanal aussi suñu candidat ak ñi mu àndal di liggéey mooy coalition Yewwi Askan Wi suñu borom defal leen defal leen jàmm defal leen aussi ndam ci li nga xamante ni ñu ngi koy wut soo ma ko permettre rek Cheikh Tidiane mhm. di jaale commune Thiénaba mhm. di jaale coalition Yewwi Askan Wi mhm. di jaale euh, Thiénaba Gare parce que dafa amoon koo xamante ni dafa bokkoon ci ñun sori woon ci ñun lool nekkoon sama xarit di Serigne Bassirou Diouf bàyyoo fii lu yàggul dara di ko ñaanal sama Euh, may defal ko àjjana teg ci njabootam loxo ba li nga xamante ni moom la doon xeex mm. ku ko xam-xamoon ni c'est un acteur boo xamante ko engagé la woon commune Thiénaba koo xamante ne ay ay valeur morale donc moo ko làmboon éthique loola daan loola daan prôné chaque jour li ñu mën a wax rek mooy yàlla suñu borom defal ñu ndam parce que ndam rek moo ñu jik parce que yàgg nay liggéey ci commune ba mm. yàgg nay liggéey aussi ci Yewwi Askan Wi dañu ñaan rek yàlla suñu borom defal ñu ndam ñëpp am jàmm commune Thiénaba am jàmm fu ñu gis commune Thiénaba ñu xam ni après cinq ans yi di ñëw ñu ne ah commune Thiénaba de comme ñu ko waxee woon xëy na jëloon na avant daare ci communes yi nga xamante ne ñoo nekkoon trois cent quarante six communes yi nga xamante ne nekk na cinq cent quarante cinq communes yi nga nekkoon Sénégal bu ñuy demaat di dakan baatu askan ñu ne ah ñii kat ay na yéwén liñ fi def rafet na. macha allah tey bañ nekk première ci langue yi yàlla nañ ko suñu baal nañ borom defal euh, yow it ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci euh, invitation bi nga xamee ne accepté nga ko ñoo ngi lay jaajëfal Ibrahima Ndiaye moo fi teewal coalition Yewwi Askan Wi. xam naa di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ni yéen a ngi doon suivre seen émission wàllu Thiénaba ci Thiénaba 24 di ñaanal DG Talla Diagne tabarakallahu di ñaanal waa euh, waa dëkk bi yëpp macha allah waaye di nuyu mbokk yi nga xamee ni ñi ngi ñuy encouragé ku ci mel ni waa amaat di ci jiital taalaxaar ndonga ak suñu mag Boubacar Ba nekk ba Espagne ak suñu rakk Sadio génn ak sama jigéen Daba Fall ak ñëpp ñi nga xamee ni ñu ngi aimé di commentaire di partagé jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.